asubillahi min seytaan rajim bisimillahi rahmaan rahim ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di mag di ndaw di góor di jigéen ñëpp ñu ngi leen di sargal di leen tatakal ah mbir mi nag moom teewaay bi nga xamante ne moom lañ teew fii moom mooy mbirum insécurité bi nga xamante ne bi moom moo nekk ci dëkk bi mm-hmm. insécurité bi nag dafa yaatu ndax dem na ba ci oto yi dem na ba ci borom saret yi dem na ba ci fépp daal lépp kenn mënta lim lépp dem na ba fi nga xamante ne bi mooy euh, côté 28 heure 18 heures 19 heures boo wàccee bu nit ñi wàccee boo fa demee sa yaram wi day daw ndax ay booy yoo xamante ne bi ay 12 ans 15 ans jëm kaw ñoom nga fay gis oto bu taxaw ñoom ñooy taxaw ci bunt ba lépp loo xamante ni lu nit yor ñu fas yéene koo jël dem seen yoon ndax daf fee bare bare bare ba nga xamante ni kenn xamul nu mu toll jigéen ñi daanaka kenn mënatoo yor leen loo xamante ni bi lu loo mën a jëme sa kër la ah lii nag dañ fay daje mbir mi moom metti na képp ku mu laal ak ku mu laalul metti na ci yow waaw ñun euh, ni mu demee suñun mooy euh, information yi si ñëpp am rek lañ ci am ndax euh, ay 3 heures du matin lan nu Euh, xamal nu ne dafa am ñoo xam ne danoo nekk ci euh, danoo nekk ci boutique bi di cambriolé léegi bi ñu woowee nag bon si leen ñëwee ak police ñoom fa la leen fekk ñu euh, ensemble avec la police dañu ñëw constaté faits yi bi ñu ñëwee ñun ñu ngi fa bàyyi woon deux millions de francs fa ak monnaie d'une valeur de 80 000 francs bi ñu ñëwee lépp lan fekk ñu jël ko yàq nañ fa benn imprimante mais constaté wuñu tamit benn dégât matériel. jëlunu bagage jëlunu dara noonu daal la fee yi demee ñu constaté ko ak la police vraiment ñun foofu lañ ci am ginnaaw bi police bon de na nañu ñun dem nañ def déclaration à la police léegi ñoom ñu ngi ñu ngi def seen enquête yaakaar naa pour l'instant ñun fa ci yamagum xamaatuñ si dara vraiment. kaa moom comme noonu mu demee rek la sama papa daal daa xëy ay huit yooyu huit heures huit dañ ko fekk ci place bi bu ñëwee nee ñu ne gramme or lu muy jar waaw nee fi muy waxee noonu daal ci leen génne arme daal booy teg ñeenti nit la nee nañ kenn kaa ngi taxaw si bunt bi ñetti nit ñëpp dugg ci biir ñu jàpp ko daal takk loxo yi takk tànkam daal takk kanamam waaw daal di fekk mu génne bagaasam yooyu di bëgg a ci leen ñëwee daal daal jël lépp yóbbu daal di ubbi coffre bi fekk ci un million cinq cent daal koy yóbbaale waaw métti na lool waaw noonu la demee. ñun la waa association tëgg taabal mooy tëgg yi nga xam ne ñooy toog ci taabal ji di liggéey léegi nag comme association la boo xam ne ñoom ñooy tëgg taabal yi dañu ko afawaale ñiy jaay or ak di ko jënd mooy ku mel ni seen Fallou nga xam ne ñu ci ëpp ci lool la ñuy kii euh, li nga xam ne am na fii depuis deux ans yi wala trois ans yi tëgg yi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi jànkonteeg moom. mën nañ ci wàññi ñett yu nga xamante ne moom moo gën a jege fan yi mooy ku mel ni sëñ Modou Guèye dañu ñëw place am dajji buntu ginnaaw bi dajji buntu ginnaaw bi dugg ci biir fekk jour boobu mu ngi jóge Dakar waroon indiwaale ay bijoux ñu jël yëpp yóbbu ko boobu ba léegi noonu lañ fi toll Modou Guèye lu jiitu loolu Cerno Jong bi nekk fii ñëw nañ coffre-am lañu ubbi yóbbu ko beneen bi mooy Tamsir Thiam nga xam ne moom moo bi nga xam ne moom moo jéggi dayoo moom yóbbul nañ ko lu tolloo 300 millions muy onze kilos onze kilos d'or ñun ñoo yoroon plant bi parce que lu ci ëpp ñun Dakar lañ féete ànd nañu moom def plainte Dakar fii yëpp dem nañ ba dikk dem nañ euh, police euh, Colobane waa kolobaan sax dem nañ ba ñoom ñu ñëw ba fii di def enquête depuis boobu léegi enquête bi amul dara lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci kii bon bu mujj bii nag moom moo tax ñun association nationale tëgg table ñu ne nag lii dañ ko dañ ci war a wax bërki démb àjjuma def nañ conférence de presse comme nii na ci organe yu bëree bëri nit ki mën nga denc ñu ñu wàll jox ginnaaw jël nit ki mën nga tëj ñu daj mais nit ki taxaw di jaay ñu fekk ko fa bëccëg jël li mu am loolu nit mënu koo gérer du benn nit moo mën a mën a lijjanti loolu. kon loolu ki ko war a am bi mu amee nag association bi ñu dajee ñu ne li lenn rek la ñu mën mooy première phase bi mooy taxaw wax ñi nga xam ne ñoom lañ denk suñu sécurité ñu wax leen ne lii nañ ko arrêté parce que lépp lu ñu bëgg a ci réew mi ñu ngi koy arrêté lépp lu ñu bëgg a ñu ngi koy saafara du mat une seconde. la preuve mooy fan yee passé am na ku rey benn benn gendarme xaw ma benn colonel matul 24 heures ñu jàpp ko benn nit ku rey benn nit benn nit lii gang la te bi ñuy ñëw xam nañ fi ñu jaar ci oto la ñu jaar te muy répété di répété wu kon nag dama jàpp ne bu ñu bëggee réew mi ñuy wax émergence réew mu émergence ñi nga xam ne ñoom ñoo war a tabax réew mi lañu ñu war a jàppale lan moo tax ñu bëgg a sukkandiku ci suñu bopp ñun chaque jour ñu nekk ci ay détails ay nangam ay nangam ñu bañ a concentré ci réew mi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor réew mi ndax commerçant yii toog ñoom ñoo yor réew mi kon nag nañu valoriser te ñu bàyyi caaxaan yi ñuy valorise ci réew mi nañu valorise ñi nga xam ne ñoom ñoo yor réew mi ñoom ñoo yor kër yi te loolu moo yor sécurité réew mi réew mi bu taxawee ba léegi màbbut dugguñu ci terroriste dugguñu ay caaxaan mooy parce que nit ñaa ngi xëy di liggéey di ñaq di def ci réew mi kon loolu la ñuy woo état mooy li ñuy jiitu nag ci état mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yor fii nga xam ne li jiitu ci maire yi ak ñi nga xam ne ñu ngi fii ñu xam ne sécurité du du du du dóor du kii sécurité dañ koy waajal da ngay waajal kii war a def loolu avant muy ñëw mais bu ñu bàyyee ba mu ñëw ñu topp enquête boo xam ne du mas a feeñ ñun tëgg yi li ñuy wax mooy musuñu gis ku ñu ku ñu gàjji mbaaram ñu ne benn gramme feeñ na si mu mutul am te ñun bu ñu bu ñu bu ñu sàcc bu ñu bu ñu jaayee benn gramme ñu yóbbu ñu kaso